ak ak ak taqe tey ñooy bëgg grand combat bi ma àndal leen ca Wassare Lamb lépp loo xam te am na fi ci lamb muy ambiance di bëre di lépp dina leen ko dëgtal ci Wassare Lamb ma ànd ci sama cameraman bu ñaawul bi di kàggu leen fa di nag duñ leen may dara te lu ngeen ñu may ñu fab yóbbu Wassare Lamb. amee dem nuyu naa. waaw mais maa ngi lay ziar bu baax. loo nekk. maa ngi nii rek maa ngi si jaamu bu baax. tey la ma wóoroon sa teewaay ci lamb waaw sama teewaay son poulet mooy bëre muy Badou Fall numéro 2 mu nekk xale bu yaru xale xamante ni bëgg na ku am bés mu taxawu la kon donc boo amee bés yoon la mu ñëw taxawu ko quoi di ko ñaanal yàlla may ka ndam. mais ñu ngi laa gis lu tax loolu. waa maa ngi fi nag maa ngi fi xam nga ñoo ngi waroon a bëre daaw le 8 mars ñoo ngi waroon a bëre sama diggante ak Valdo Covid bi ñëw yàq ko kon donc sant yàlla boobu ba léegi nag ñoo ngi suñuy wàccaay di préparer di xaar am nañ yaakaar nag incha allah si août bi ñu bëre incha allah waaw incha ñu gis euh, xaar bi yàgg na boobaa ak léegi naka la met dem doon dundee. waaw métti parce que ku préparé ba mu des deux jours li nga amoon lépp nga def ko si combat bi loolu métti na fa mu métti yam parce que deseetuñu woon dara mais nag sant yàlla parce que bu la yàlla booleeg ay nit ñu mel ne ay Issa Marière ay Mansour Bamako ñii ñoo tax yëguma Covid bi wallaay lazim parce que dañuy jël seen alal di ko def si man kon nag dooli sant yàlla di lay ñaanal ca kaw sa kanam ay Assane Talibé xam nga su sama sama mag yi ñoom mamati vraiment man aw ma seen fay su ma ko yëgul rek gannaaw yàlla ak ñoom la quoi. mais mais gis gis yàgg nga ci làmb. mais boobaa ak léegi euh, fi sa tur yegg euh, dayo bi yeggul foofu lan moo tax chaque jour ngay wàcc di nangu di jël booy yi boobaa ak léegi Ameth Deme woo na fekk ñoom Ameth Deme Garga Mbossé dem Deme Sa Thiès Ameth Deme Malick Niang Ameth Deme Boy Niang lan moo tax boo ak léegi nga nangu di jël ay Valdo ak a yu demee noonu. xam nga lu tax ma jël Valdo biri birisili daan birisili daan ma toog di laaj gaay laaj naa Garga Mbossé numéro 1 gaay nangu noo bëre ma laaj Modou Anta nangu noo bëre laaj naa Sa Thiès nangu noo man xaw ma lan la man damay obligé daan ne mbëri danoo soxor parce que may bañ a jox sama chance c'est la obligé nag ma ne comme tey bon as bi du xaar temps bi du xaar booy bu pour rek am fu la fay dama ñëw bëre ak yow. mais que tamit boo ñooñu bañ a jël combat bi nga nangoo bëre ak booy est-ce que du risque. waaw benn benn benn la risque la. mais nag comme ni ma koy faral di waxee su ma jógee si Valdo bi incha allah bu gars yi nangu la bëreeg man ponkali damay jaral ma bàyyi parce que ma fee toog rek di bëre booy boobu ba léegi mën na ma wax ne 3 ans ay booy laay bëreel gars yi nan ñëw nu bëre nan bàyyi soxor gi Garga Mbossé moo ngi fi di toog Modou Anta moo ngi fi di toog nan ñëw nu bëre. Malick Niang démb moo ngi. Malick Niang nan ñëw nu bëre maa leen ëpp ay victoire 18 combats laa def 18 combats 15 victoire la am 15 victoire la ñoom ñëpp maa leen gën a baax palmarès nan ñëw nu bëri muy Malick Niang Modou Anta yaa may muy Garga Mbossé numéro un nan ñëw nu bëri. mais dama gis saa yooyu fan yii booloo ngeen booloo euh, ngeen ngeen ay mu nekkoon ay écurie mais lépp ngeen def ko benn entraînement gi naka ngeen koy defee. waaw fi mu ne nii caare yi léegi lépp benn bopp la. écurie yi fa amoon yëpp léegi dindi nañ lépp muy caare sur mer benn moo fa am fi mu ne nii champion yëpp ñoo ngi ñëw ay Issa Pouye xaadim un xaadim deux Reug Reug gaa ñoo ngi teew entraînement xam nga di remercier suñu grand muy muy muy xaadim Ndiaye numéro un moo ngi ñëw di taxawu booy vraiment fi mu ne nii daal 100 pour cent caare bi dañuy ñaan yàlla mu avancé quoi. lan ngay wax ci digganteem moom ak wulli kan ak kan xaadim Ndiaye ak wulli xaadim Ndiaye ak wulli dañuy ñaan yàlla xaadim Ndiaye daan rek. dina yomb. waaw bu yomb sa na xaadim daan rek wuli day wuli waate mais na daan rek di ak Khadim Ndiaye numéro 2 di ñaanal tamit Reug Reug yal leen yàlla may ndam ah ak sama booy am combat yëpp am ñoom Ran Diop boo yëpp daal maa leen ñaanal ñi amul combat yàlla may leen combat ay am dem numéro 2 ñëpp maa ngi leen di ñaanal daal. kontaan naa ci merci beaucoup bég naa ok. Habib ba sifflé na deuxième am na benn sango bu mu seen diggante. Boy Sène jël ko sànni ko ca gannaaw Boy Sène moo ñu wan ginnaaw Gros File moom la ñu loolu machine daawina la Gros File Boy Sène Gros File est-ce que tey di nga daawina Boy <laughs> xanaa mooy mbaru tëyeer yi Gros File Boy Sène Boy Sène cokaas ko léegi waaye dalul Gros File ubbeeku <laughs> Profil daa ràcc Boy Sène daw na yooru Boy Sène xeex bi arrangé wu ko daw na yooru Gros Fil caxabal na ko daan na ko Gros Fil daawine na Boy Sène Gros Fil daawine na Boy Sène Gros Fil daawine na Boy Sène Gros Fil daawine na Boy Sène dafa daw yooru mu jàpp ko roof ko caxabal ba ba ko waaw waaw. ndaw la. xale li. lan moo tax Gros Fil. waa Gora non. turu Gorofil. laaj yow damaa kontaan. turu Gorofil. turu Gorofil Baye Fall ñoo ma ko tuddee waa Sën Seck mi waa Taalib Sëñ Fall ñoo ma ko tuddee. ñoo waral turu Gorofil. mais maa ngi bëggee journaliste yi. waaw ma leen daaw mais lépp xam nga rek non waa tayal yi laa sagal waa tayal yi tayal yi laa sagal man du ma tayal mais dama leen sagal mais yéen journaliste kontaan naa ci yéen mbër bu fi tiiw yéen a ko siiwal bu fi tàkk yéen a ko tàkk. masa leen coono waaw damaa sonn si combat bi daaw daa jël lépp jox ma dara damaa leb xaalis barke sëñ Touba cent ay deux cent mille laa pour am ndam barke Alxuraan damaa sonn si si defet laa jóge ma mobilisé ni si defet laa jóge mobilisé combat bi liggéey rek paa rek ak waa ak waa bi bilaay damaa sonn si combat bi nii la mën a demee Ahmed. Ndaka nuyu naa la. fay naa la. loo ne. sant moom laa gëm moo ne moom lañ ma gëm ñu gisoon tey nga doon bëre spécial tey nga ñëw bëre grand combat bi. Euh, sa digganteeg yow ak kii xeex la wala bëri. maanaam gis nga amaana combat bi ñu bëri la yéem mais man yéemu ma. ndax lan taalibe maam Cheikh Ibrahima Fall laa dara jomm yàlla suy defar day mel ne luy yàq mais jaam day nangu ndogal. mais di gis ne fan yi neex leegu leen. tey nga war a ñëw fàttu lool noonu. est yaa ngi koy bàyyi xel. yaa maa ngi koy bàyyi xel bu baax baax. yàlla moo am ndam suñu ko doon jox muy neex. ñun suñu ñaaxee dañ koy delloo santaat mais tey maa ngi ñaan suñu borom bi yàlla ma yàlla suturaal mais man ndam bu set wicc. mais mën nga ñoo xaar tous mu neex. lu garaaw. Caatu Dalifor internet moo ñu woon ginnaaw Caatu Dalifor lañ jàkkaar lool xale yi seen combat bi xaw naa yàgg internet cokkaas na léegi waaye dalul Caatu Dalifor méb na waaye demul bu leen ñu fi guddeel bëre leen ngeen jóge fi oh Thiatou Dalifor da doon dóor léegi internet remise ko Thiatou Dalifor dóor na leen coup bu dal jàppante nañu internet caat Dalifort bàyyante waat nañu internet caatu Dalifort waaye seen combat bi neexul waay caat Dalifort sànni les coups jàppante nañu internet caatu Dalifort combat man sax dama cee mujjee sonn ay xale yoo xamante ne dañuy jàppante rek taxaw duñu dóor duñu caxabal duñu padd duñu mbot duñu plaqué duñu faxat xale yi daal ngi noonu. xanaa mu mujjee toog di leen seetaan ganaan nii ngeen ko doon jàppoo du ma ci bett sama énergie damay toog di leen seetaan rek internet door na léegi ay roko caatu Dalifor maa ngi seen mbay guy yi te dafa jàkkaarloo ki nga xamante ne ni mooy Balla mbay gu noonu di dugg si mbay gu mbay gu noonu mbay gu géegi noonu ànd njaatin internet taxabal nañ ko taxal nañ ko 16 taxal nañ ko na caatu Dalifor da koo dugg takk ko tegal ko 16 wëndeeloo ak moom biij ko daanu caatu Dalifor am na ndam ci kaw internet caatu Dalifor caatu Dalifor a ngi na internet. mooy yóbbu gars top 5 wax naa ko man dama ko yóbbu top 5 kii moo def lépp ci ñun mooy Omar Dieng moo def lépp ci ñun billaay wallaay. su ma ko dirigé woon pare na jeex na bu yàgg ma ne ko doon déglu xool lu muy rek. fan nga jëm. na ma gars yi jox bi mooy deuxième combat deuxième victoire. si gars rek nañ fii gars nañ ma ko jox. waaw su génnee. non combat bi que ñaari jàmbaar foog mu métti. combat naxante la quoi. waaw mais dafa kontaan booy li may daj ci ñoom Ticmbom moo gën a ci li may ci ñoom. barke alxuraan. walaay. Tidiane nuyu naa la. waaw ziar nañ la. ci loone sant yàlla bu baax. dafa mel daay jël nga avance suñu tool yi. waaw ñu ngi ñu ngi waaj bu baax de. Ah. waaw ñu ngi waaj bu baax. day nga andi sa poulain. mu war a bëree naka ko yabee. waaw ñaan yàlla may ndam nag ndax li ñu waroon yëpp def nañ ko préparé nañ ànd ak suñuy mbokk. génn nañ suñu papa ñaanal suñu yaay ñaanal ñu dañu ñaanal léegi yàlla def rek yàlla may ndam. la moo tax nga jël euh, Alioune Seye junior. mais maa bëggoon bëre xale rek. yaa bëgg a bëre xale yi. waaw kese. kon yow daal su ma juumee grand compte petit dañ cee bëgg a bokk. waaw mais day yoon quoi xam nga làmb niveau toltu niveau boobu noonu ñuy bëre suñu biir rek il faut ñu wàcc bëre suñuy rakk. parce que ñun lan la da bëgg a bàyyi làmb wala. bëre bëre booy teew teew te nga bëre loolu du dara. mais su su yàlla tere bu ko booy bi daanee. naka la naa waaw waaw waaw xam nga loolu moom man mënu ma ci wax parce que man damay dem ndam laa bëgg te incha allah yàlla gëm naa na ko may waaw. dina neex sa digganteeg moom. loolu moom jarul wax ju bëri sax parce que bu ma ko wax sax damay bàyyi noonu ba bis ba rek. Tidiane Faye mañ xamoon ci xeex bi ci bëre bi. waaw mais Tidiane Faye moom duñ ko a gis. da ngeen ma gis incha allah la wit incha allah. waaw ñu seetaan tous te bay eh lu ma teree ma bay lu ma teree ma bay Ama Samba Fall Boy Fall la Bankas Boy Bankas à droite Patar à gauche xale yaa ngi Boy Banka Usine Pass moo koy dóor moo koy dóor Usine Patar dafa jël coup Boy Banka Usine Patar dafa jël daw mu topp ko dongali ko Habib yaa ngi laaj lu xew. Habib bi jox na avertissement kii di Usine Patar Boy Banka sa ngi noonu Usine moo ñëwoon ginnaaw. Boy Bankass day lewaatoo ba mu neex mu dagg waaye li mu diwoo kenn xamul lan nga ca digg géew ba. daw na jël ko usine Paata da daanu da daanu usine Paata da daanu Boy Bankass daan na ko da koo takk waaye ñëwul. maam Balla ngi noonu maam Balla ngi noonu moo ko mën dama ko woo si signature bi dama ne la tojal adresse man doomu arène laa man surtout père Birame Ndiaye laa dama mën a bëre déggoo ma de man fi ma jëm sama coach yi laay déglu man dama nekk si ay loxo mais xoolal anaconda nañ ma ko jox dafa mbër nañ ma ko jox man dama ragal Ada Fass dama ñooñu samay morom lan bi mooy sama cinq combat quatre victoire benn défaite non kii kii pata ma doxloo muy diree xoolal ma koy ñam nice kii dama ko doon doon mu daaru dafa mooy barki borom daaru salaam xoolal combat bi dafa am ñu si jàpp ñu bari aw ma seen fay kii sama goro la barki maam Cheikh Anta mënu ma ko billaahi wallaahi taala Abdoulaye Hadj Sarr kooku aw fayam. booy bi ziar naa la. nga delloo ci loone sant yàlla bu baax. tey naka nga ñëwee. non ndam rek ñëw stade duma daan ñibbi incha allah. mais gis nga sa waay sa waay na léegi stade bi tuus na lu neex ànd ak waa lan saa géej yëpp. non lu ma la waxoon ci laa ci lamsar rek laa lay waxaat ñooñu ay fecckat lañ. man ñoo ay fecc kat. doo Lamsaar. ñu ñëw bàkk fi bàkk bu ba ñaari mbër fa naa la ko wax sax bu la neexee. limal moo Siteu la. ak Mama Lamine. ña fa def ñëpp duñ dara. ay fecc kat lañ. la woon nga jël taxe. non taxe damaa bëgg a dafa am lu ma bëgg lu bëreel waxoon naa la ko keroog. te instant bi ma bëree kook il ma daan ko parce que waa Lamsaar ay siisumaan lañ. soo daanee seen ba dañuy siisu. kon léegi yow su ma su ma déggee wax ji mooy. bëree goog taxe ne am na keneen ko fa bëgg su ma paree ci taxe a Lamine bu ko Garga de daane mu ñëw ñu bëre barki alxuraanu karim taxe diis na de kii du dara kii bu arbitre bi soufflé ngeen jën ci moom tey laa dama koy yaakaar nga ne bu arbitre soufflé di nga ko daan barki Seydina Mohamed laa la wax li may wax lu ma gëm la déet sawaay man micro du man yow is xam nga ma la de waaw oh, looloo tax man daanaanu làmb laa <laughs> xamaguma la de looloo tax nag tey làmb ji lan la laaj non tey làmb ji dal la laaj parce que ki may bëreel poids lourd la xam nga xam naa ne amul bëre jàppandu la bëgg da ngay ba jàpp na dina xeex de non na xeex loolu laa bëgg man moom billaahi bu ma sañan bu doon ku daan rey nan man nangu na maa teg sama ru sama combat ak moom ah. billaahi kii damaa xam ne mënu maa daan kii day mbër waaw baax na ba ci loxo nuy <laughs> fii ak Mame Balla boo fay def jàkkaarloo mook mbay guy yi Mame naa waaw maa la fay baax mais course bi pour lan la. course bi pour lan la. waaw ah, mais course bi ay ñun ay ay jaamu yàlla lañ. da ngaa ñëw da ngaa julli di wér wala da ngay wér di mbay guy. non damay wér yàlla kenn mënu ko ndax man naturel noonu laa damay man doomu daara la dama julli cinq heures ba pare doon wér tombé sama heure jot ma départ ñëw. mais ñu gis nga jël combat bi combat bi depuis daaw la woon booba léegi wàccaay bi yàgg na naka ngeen doon waajee. waa sant yàlla rek xam lam moom du ci gan quoi. waaw am na ci am na ci expérience bu baax a baax waaw comme ni daan waajee rek moo loo quoi du daaw sax daaw jéeg presque nga wax quoi waaw kon saa bu ñu ñun xam nañu luñ doon xaar xam nañu doon entraîné quoi am nañu ay course am nañu xam ne nii seen na ci ci wàll wi quoi xam na waaw xam nañu doon jooy bu baax a baax. mais ñu gis ne Mambalo ku doon bëre moom ñu ne boobu top 5 jël boo daan bu nekk day dugg top 5 mais ñu dem ba benn moment gisatuñu Mambalo boobu ñu dem di gis beneen Mambalo jékki-jékki Mambalo ñëwaat. jël ki nga xamante ne mooy Tapha Mbeur que bésu làmb ja ñëpp Tapha Mbeur lañ joxoon favori nga ñëw nga daan ko lan lan lan lan lañ mën a xaar ci Mame Balla moom mbay guy gi ndax mbay guy gis nañ ko wax ji bëri na fukk bi bëri na lan mën a xaar sa diggante ak moom. waaw sant yàlla rek comme ni nga waxee rek jàmm ak pexem yàlla dogalam loolu ñu doon def noonu jële buñ daan bu ne ñu dugal ko top 5 loolu suñu borom moo ñu ko baaxee rek waaye ñun ay jaam xeebu lañ peut nag mën nañ métier mën nañ foo waaw du ci naagu peut-être benn instant li nga wax tamit après tiir nañ ci leçon bu baax moo waral bi ñu ñëwaatee jël euh, sama at sama adversaire bi passé xam nañ ne ñu doon xaar ñu job avec sérénité xam nga ba yàlla may ñu si ndam bii tamit c'est la même chose foofu la ñuy taxawaat rek. mais Mbaye ku ko xam na xam na xale la te day xeex day bëre naka nga na jëflante ak moom wax ji bëri na sa diggante yow ak moom. waa non wax ji si moom la bëre mais man wax ji bëre si man parce am naa bis bu nekk am naa fi victoire bu nekk am naa fi takusaan bu nekk. kon li yóbbuwul sama bët quoi comme comme adversaire fi jaaroon na rek loolu laa ko jàppee. loo ko yóbbante. amul lu ma ko yóbbante aw ma dara lu ma ko yóbbante aw ma dara lu nekk si moom li nekk si man rek laa gëm man waaw. kontaan naa ci. waaw maa maa gën a kontaan si internet yëpp waaw moom la bu baax baax. waa di ñaan yàlla benn saa ni dugg si biir bismillahi rahmaani rahim génn si alhamdulilah rabbil alamin yàlla may ñu dem bu baax a baax waaw di nuyu suñu yëpp waa benn baraag géejewaay yëmbal wu dëbbuun xam ne moo la sama waa koñ yëpp ñu ngi leen bëggee waa marché Xelkom waa marché Bes xam nga mbokk Saalum Saalum bu baax a baax ak waa Touba yi xam ne fa laa jàngee bu baax a baax xam nga waa Grand Place xam nga gars yi maa ngi bëggee maa ngi bëggee gars yëpp xam amoo siis xam nga maa ngi bëggee bu baax a baax waaw. jaajëf. mbay mi nuyu naa. maa lay fay doom day. ci loo ne. sant yàlla bu wér gërëm Serigne Touba. mais état de forme dafa garaaw de. ah état de bi dafa garaaw nu mu demee noonu. non état mën a gu ngeen koo gis leen ban simmee rek. waaw ah, li ngeen wax. buñ simmee ngeen xam ne lépp dëgg la. dugg si di njàpp mu ne la. non ñun ay du ñu ay gën a xam. waaw danoo yàgg ci affaire ñu gis nga jël Mame Balla combat bi na. la moo dugal ci Mame non maam Balla grand frère la moo nu njëkk ci làmb bëreeg ay Moussa Ndoye ñoom Lac Rose kon bu nu mayee saat ba nuy bëreeg moom rek day sant yàlla xam ne. mais xale la ni yow de. xale la li man mais maa ngi moom du nu benn te balaa nga koo xam ñu simmee ko maa moom wala arbitre naan pare nga wala pare wala bokkuñu. te balaa ngeen xam dara biir wàcce loxoom du nu benn sax. lan moo wutale. bokkuñu maa ko gën a neex xale maa ko ëpp doole bokkuñu. mais ki gis yaa ko ëpp doole jàppante gu leen nga ne yaa ko doole. barke alxuraan maa doole maa man billahi wallahi. lan la. vidéo yi kay après dañ ni lan la. non lii doom du dara dañ ñu koo jox rek pour ñu yor ko yaa ma gën a xam parce que nit moom booy ñëw ci nit ñu toll nii da nga war a aar sa bopp yaa ma gën a xam pas mbër mi nag li koy daan mooy dëggal suñu bopp duma ko daan ko yoon waaw ah. mais est ce que xeex maa ngi naan ko sa diggante yow ak Mbaye Gouye Gui coow li dafa bëri mu ne ci yow la coow li bàyyee mais du ci moom. waaw mais ba suur ba rek man moom garaawul ko mais ci kattanu yàlla boor bi suuflee ah du xeex du bëree du ma daan incha allah du def dara. kontaan naa ci yow. jërëjëf Dame Ndeye. Petit Niang nuyu naa la. siyaar nañ la wu ne nañ la bu baax a baax. auzu bilaahi bismilaahi inna wa nee laa. jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba ginnaaw ma sant yàlla du seen maa ngi sant sama ñaari waajur bu baax fay nañ la la ma fi doon sa teewaay tey. biir sa ñëw nga ñëw fii tey lu wér lu waral lool. waaw ma jël ñaari avance ba xew te <laughs> ay mbër lañ ay xale lañ defuñ dara lamb rek la ñuy suivre xam nga ñu proposé beneen combat combat bi amagul date te combat bi am na date ñu jël ko rek bëre incha ci kàddu naa di ñaan yàlla yàlla may ñu ndam ñaar yëpp. da ngay jël quatre avance di waajal cinquième bi yow nga ne xale laa a ñaar waxuma la ñun ñi nga ay xale dañuy bëri rek dañuy ñaan yàlla suturaal ñu may ñu ndam rek. lan moo la dugal ci Ziza. bëgg a bëri rek ak toog bañ a bëri. billaahi toog bañ a bañ a bëri rek mu romb jël. combat bi kañ la. le 4 juillet incha allah waaw. Ah, loolu dafa mel ni fi mu toll nii ku parewul doo jël combat. yàgg na kooku kenn waxatu ko. pare naa parewuñ loolu moom beneen détail la sax beneen wax la. mais Ziza nekk ndaanaanu bërëkat. nga dem ba moment bi jël ko. combat bi lan la laaj. champion la ndaanaan la. moo ñu ji si làmb waaw dañ koy cëralee loolu quoi mais xam nga xale bu suivre làmb defu dara suivre làmb kese ne lamb laa bëgg moom mu nangoo jël ma xam ñu war a laale moom dama ko ñaanal jàmm rek ak salaam loolu laa koy ñaanal doo ko yóbbal bu mu xalaat benn yoon day yomb bàkki alxuraanu karim du caaxaan de billaahi wallaahi loolu laa koy bu mu jàpp ne benn yoon combat bi mooy. ginnaaw booy ñang la nekk ko tegal doo ko tegal Balla <laughs> wala Tapha wala keneen mu gën a neex ragaluñ loolu. baax na ci kanam jaajëf. Ziza nuyu naa la. waaw mais delloo ziar gaay. loo ne. waaw maa ngi sant yàlla bu baax. jotoon nañ la gis foo nekkoon. waaw mais dama nekkoon ci ruq rek. di liggéey rek. lan moo la dugal ci Petit Niang. ah lu la dugal ci Petit Niang. Petit Niang. maa moom tolloo wuñ sa génération. billaahi tolloowuñ sa génération. nee na ku la wax combat bi day yomb dalay nax. non ah, rek man li ma concerne mooy lii quoi moo duggoo ci moom parce que su ma juumee da doon combat préparé combat moo brisé mer ba combat bi ñëwagul mu pare ba noppi nga dugg ci moom lu waral lool. waaw mais ñun mi ñu fekk suñu entraînement. Petit Niang da ngay xool ay combat nga xool sama combat nga xool maa moom ko raw man ay dumbal laa bëreel ay pambaay. xam nga li ma la ay Dame Sène ay capitaine Dina ay Mandela daan leen ay seconde moom waxam waxam yooyu muy wax moom na concerné man concerné ma. mais xale la te dafa nekk ci yoon. bu ñëwee day bëre day xeex day ànd ambiance. waaw mais loolu xalaatam la rek man li ma man li ma man li ma intéressant mooy lan yàlla may ma wër ak tal ak fekke yàlla may ko wër ak tal ak fekk affaire bi du wax de. nee naa ko ci di Ziza ci ginnaaw Boy Niang la nekk mu ne ma tegal ko ci Balla Gaye. non waxu Boy Niang waxuñu ko fi. dama ne ko ci ginnaaw ndaanaa la nekk ndax ndaanaa la mu ne ma naa la ci tegal Balla Gaye. man écurie écurie lan daan laa nekk ànd ak samay waa ko ñii. ah da ngaa jugee ci Boy Niang. waaw jugee naa bu yàgg écurie lan daan laa nekk ànd ak samay mbokk ñi may àndal nii ñi laa àndal ba may xale ba léegi ñoom ñoo ma doon ngemm may dem si làmb ñoom ñii gis nga ñi ma àndal nii samay maga fi nag ak samay copain ak samay rak ñoom la àndal ba tey ñii si wàllu làmb ñu jëlaat ma defaraat ma dama juumoon nag man maa juumoon mais yàlla dimbali na ma ba ma booy dem te xamatoo foo jëm da ngay dellu fi nga jugee ma delluwaat samay mbokk te samay mbokk ngi nii xam lu ma koy ñaan moom yàlla nu yàlla may tal ak fekke ci kàttanu yàlla yàlla may man dam ci kawam parce que man wax mu ne ma ko billaahi wallaahi laazim laa lay giñal de wax mu newu ma ko man xam li ma xam kontaan naa ci mais tamit di di sant bu baax parce que yéen da ngeen di defar xam nga làmm moo baaxoo nii booy bëre ku la ëpp tur foog ngay wax leer na la moom ma ko ëpp tur yow loolu leer na la ah Modou Awatine maa ngi moom bëre nañ xam maa ngi Modou Awatine bëre nañ mais loolu sama liggéey la moo tax mais maa ngi santaat yàlla di santaat yàlla ba ma mayee tal ak fekkee di woo waa Pikine nag maa ngi woo waa Pikine bu baax parce que ñun Pikine la ñu am man doomu laa man doomu Pikine laa Dominique laa juddoo yaroo fa samay mag ñoo fa nekk maa ngi woo Eumeu Sène Ama Baldé Boy Niang ñoom sox maa ngi woo waa Pikine yëpp ak 100 pour cent Pikine bi ay Pikine bàyyiwuma kenn quartier bi ma dëkk nag muy yeewu laam yeewu muy sama koñ fi ma juddoo yeewu Sirat Gonay Zeng yeewu Sirat Gonay Zeng Benja Espoir maa ngi leen di woo ak Teranga maa ngi woo ñëpp ak Cité bàyyiwuma kenn xam nga di woo sama waa koñ ak sama mbokk bi Bignona yi maa ngi leen woo bu baax a baax su ma waxee ñoom dinañ comprendre quoi di wa sant almaamili ak bàcc ba bàcc bàcc maa sàmba maa ngi leen sant parce que ba mu méttee gis naa leen ñu jàppale ma yóbbu ma saal bu baax may antenne di leen woo ñëpp autorités yi nag Pikine nag bàyyiwuma cet ba suuf Pikine Nord maa ngi woo ñëpp ñoo jàpp si autorités yi nag Pikine maa ngi woo ñëpp waaw ñëpp maa ngi woo. Ziza bu bees daal. déggoo ñu ne Ziza de retour l' éléphant en force. te incha allah di nga comprendre la kat di nga comprendre kuy Ziza xam nga gëj nga ma gis nëbbatu woon naa. dama e ñëw ñu waxtaanee ko. mais loolu da boo ñëwee amul problème comme jël nga gaay boo waxal ak gaay rek man ma benn problème. ñu dégg ko di ko ñaanal tamit wér de ah. di ko ñaanal wér di ko ñaanal wér moom adversaire bi di ko sant tamit quoi. ci jël bi mu la jël. waaw di sant tamit ci jël bi de. parce que man mi di wax ak yow nii maak Ousa 2 ñëw lañ doon lañ doon wax ba combat moom laa doon préparé depuis koor ba léegi. far yàlla ñëw ni boo xoolee mooy sëqatee nii sax da ngay xam dama tooy mais yàlla yàlla def jaam te yéen di wax seen site bi maa ngi seetaan affaire yi quoi yàlla na yàlla yoo parce que lii dafa am solo quoi yéen da ngeen ñuy jël di ñu génne ñun ñoo amul seen fay di leen ñaanal tamit yokkute quoi jaajëf kontaan nañ Thiaw Thiaw Star Boy Malaw Thiaw Star lañ jàkkaarloo Boy Malaw moo ñu won ginnaaw xale yaa ngi lewaatoo Thiaw Star Boy Malaw ku nekk ngay xool sa morom ñu jàkkaarloo ñoom ñaar Thiaw Star Boy Malaw Boy Malaw moo diwoo suuf bi Thiaw Star lañ jàkkaarlool xale yi wàcc nañu Boy Malaw Thiaw Star bi baax na leen bëre leen Thiaw Star Boy Malaw Boy Malaw cokkaas na léegi waaye demul Thiaw Star bu laal a ngi noonu dee ko laal dama bëgg a mel ni yow <laughs> Thiaw Star Boy Malaw Thiaw Star Boy Malaw Cawe Sarr Boy Malaw xale yaa ngi lewaatoo congo amagul abit bi sifle na abit baa ngi wax ak ñoom nee na bëreegu lii ngeen def andiwu leen fii abit waat na Caw Sarr Boy Malaw xale yaa ngi noonu Caw Sarr lañ jaakaar lool Boy Malaw moo ñëwan ginnaaw Diaw Star na léegi Diaw Star Boy Malaw Diaw Star Boy Boy Malaw dugal na léegi waaye dalul Thiaw Star Thiaw ko léegi Thiaw Star ko mu daanu door ko mu daanu Boy Malaw door na mu daanu Boy Malaw da door kur dal Thiaw Star def demi flexion waaw waaw Boy Malaw door door mu daanu. booy maalaw law be ba door na caw esaan mu daanu law be ba door na caw esaan mu daanu na booy maalaw nuyu naa fay naa la Fall mais ñu gis nga xeex xeex bu métti doo waaj mu daanu mais law be ci ay fer lañ ko xamee woon ay cuuraay ay nemali ay dogali nu mu demee noonu waaw mais dama doon lu bëri Fall doomu jëri Sadio la di raqi maalaw seras suñu ñaari yaay bokk nday ak baay ko ah, maalaw seras junior raqi maalaw seras yaay bokk nday ak baay di raqi bi mooy sa ñaata combat bi mooy sama troisième combat troisième victoire. daa naan nga. ak sëñ Saliou ñaanal leen ma rek Fall. mais fere cuuraay loo àndaale wu. lépp naa ko indaale biir ñëw laa ko indaale. lépp incha allah waa ji loo ko jox fere nga ko jox wala cuuraay. waaw bi ma ko jox as góos mu wàcce garde bi. ma dóor ko waroon nga mu daanu nga fekk fa ba koo dog. dama ko bëggoon dalaat. Ah? lu wax signature bi la. loolu moo métti. donc koo bëggoon def. maa ngi cee du làmb sax. dama bokk ci làmb. ka moo sa à suivre naa la ko wax après. ak sant nag Waly Waly ak Mor di sant Joni bu déggoo ak Ibra Fall bu déggoo di sant sama waa ko waa yëmbal nag yëpp maa ngi fay di gërëm yëm rëm yàlla may ko ndam waaw waaw Taalib Bamba baa ngi rëm. Gaynde. Gaynde ziar naa maa ngi dolli ziar. ci a baax. li lii ba pare wan ma yëre musulman bi la yëre musulman bi. balaa waaw drapeau drapeau l'islam. lii nga takk nii la. non lii nag samay bagage la. limal ma ko lii la kànnaa da laa fi gis. waaw lépp ci lépp lépp. dafa ñëw dafa mel ni da ngaa ñëw yu bees tàq laa fi gis. waaw doom yaay comme dama defoon exil li ñuy wax exil dem Palestine dem Afghanistan dem Syrie toog fa quatre ans desuwaat bu ma desuwaatee bu ma ñëw dama indi lu bees looloo waral ma indi lu bees. booy moom wax leen bu ci wës fa benn yoon. non bi yoon moom wësi fa kenn du ma ko def ko wax naa booy pour ñu dimbale ma ngir yàlla yontu ñu bañ maa wësi fa bi yoon leneen laa ndaale jël dem jël dem. jël dem jël dem. naka naka booy doon defee kalso kalso kalso kalso. boobu doom yaay mais gannaaw yàlla ak yonent bi maa ngi gannaaw yàlla ak yonent ngi ñaanal euh, di ñaanal Gambie di gërëm sama fukki waajur. fukki waajur. waaw ah, fukki naa ñaar yor yor naa Sénégal ñeent. Palestine ma yor fa ñaar Afghanistan ma fa ñaar calculer ko loolu la. ñaar Sénégal. ñaar Gambie. non non ñeent. Gambie ñaar. waaw Afghanistan ñaar. Palestine ñaar. waaw. kenn de yow. waajur laa am. dégg naa sa adversaire nee na dina la dóor ba nga daw génn nee na loolu kenn waaye noonu la la nga def. barki Seydina Mohamed bu ma soobee Assane Ndiaye mu ñëw ñu bëre léegi. waxal ma Assane Ndiaye ne ko man pare naa. léegi moom mënu leen koo barki El Hadj Fallou man pare naa waa bu taxawee dinaa ko duma bu bëree dinaa ko jàpp danaa dinaa ko aras ba ca kaw. ma nee ma yóbbanteel ma ko tànkam yi baaxul. moom moo wax moo ko ah, moo la tànk yu baaxul dina dina squat ay 400 kilos. non oh, tànk yi. non non tànk yu baaxul dina squat kilo kilos. baaxu yu baaxul dina squat 400 kilos. tànk yu baaxul dina squat ay 300 kilos. billaay walaay ba taalaay Assane Ndiaye ma ma sooyoon léegi ñu bëre léegi làmb ji léegi mu jeex. le cadre dafa sore. mais dafa fee gis keneen koo xamante ni ak moom adversaire la. Ah. muy bébé Elton. non bébé Elton kooku comme ci match nii la jóge mënu maa bëre moom boo ma ndam ma bëre moom. loxo bu dugg see ni muy njaabee nii kooku li nekk man néew ci moom booy yooyu maa leen ëpp doole na maa leen ëpp doole maa leen man barki Seydina Mohamed maa leen bu doole maa man te ku ma ci du ma ci jàpp ma la dóor du la yërëm. billah loo leen def. kenn ku ma ci jàpp dama lay lekk. billah. RTS Moussa Ndiaye. Eh, la nga tuddee sa bopp télé bu rëy la kooko RTS moo ñu wan ginnaaw Moussa Ndiaye moo moom lañ jaakaar lool waa RTS am njool mu ndaw la Moussa Ndiaye jël na avertissement abi sifle na ci diggante RTS ak Moussa Ndiaye njool ndaama la Moussa Ndiaye waaw Moussa Ndiaye nu muy leewaatoo nii vite fait bi waay doomu daal laay leela laa RTS Moussa Ndiaye laay télé Sénégal baa ngi noonu caxabal ba caxabal ba eh, RTS lu muy def nii daan o oh, eh, RTS daan na Moussa Ndiaye eh, RTS daan na Moussa Ndiaye laay leela laa xale baa ngi noonu RTS a ngi noonu kii du télé bu yàgg kii télé bu bees la RTS jël ko njuug ba njuug ba RTS laay RTS a ngi noonu télé national RTS daan na Moussa Ndiaye vite fait bien fait xoolal RTS la mu andi la xale bi xale la kàggu kaa jëlal ma tees. macha allah alhamdulilah. jërëjëf Serigne Touba. jërëjëf Serigne Touba. ma ngay jooy. ma ngay jooy. xale xol bi daa a ngay jooy waaye sigil wax ak ñun. ndeysaan sa jàmm yàgg. macha allah li leen bëggoon. lañ doon ñaan yàlla yàlla may nañu ko sant yàlla sant yàlla. siggil nga wax ak ñun. xol bi moo sedd mu lu ma rek comme ni mu ko waxee woon signature ba rek man RTS man man booy bi taxumaa jóg. waaw billaay waxoon naa ko signature ba. mu naan ma dem may fekk RTS. tëj RTS ma ne boo demee RTS nga fekk ma fa bu ñëwee arène nationale nga fekk ma fa barki rasulullah kii maa ko mën li may ci mbabar bi xajul ci kawam ay mbër ju 120 ñoom général Malika ñu nekk grand combat bi ñoom lay bëre ci àll bi di leen tànn. dox ci kawam. non kii dama ko am kii dama amoon dama ko gën a wane maa ko gën a nekk bandi man bandi laa man séeréer pire laa. mais damaa gis da nga koo njoolu da koo caxabal ba noppi njoolu ko. li ma bëreeg moom sax gaañ dama rek. billaay loolu du sama for. barki rasul la moo sa kanam. ñu nekk grand combat bi nañ ma ci jox ku daan man nañ ma ci jox grand combat. billahi wallahi ñu daan ci grand combat bi soxla naa maa ngi lay nuyu. Ah, maa ngi lay ah, ñu gis ne léegi ah, monument nga bii caaro yi ñu gis ne caaro léegi écrit yëpp booloo nañu nekk benn xale yëpp jiital la naka nga naka nga dundee loolu. di ko rafetlu rek di wax ni yàlla ñu yalla musal ci saytaane lépp li fi amoon rek saytaane la muy Xarim Ndiaye numéro 2 Ousmane Diop Issa Pouye Baye Baye Mandione ñëpp samay tey bu yàlla doogee ñu defee ni turbaay ñoom ñëpp ñu mais ñu gis nga ay xale yoo xamante ni bokkuñu jikko nga boole leen est-ce que loolu dina yomb. waaw dina yomb da nga leen di jàppee yow sa jikko rek boo leen jàppee yow sa jikko di nga leen mën a wuñal wiir leen lamb ji daal li ma leen wax ren ak déwén ci kattanu yàlla bu ñu yàlla maye guddi fan ak wér dañ ko bëgg ñun waa Thiaroye suñu loxo. mais père loolu yomb de ndax combat yi dafa métti. waaw xar combat yi nag mooy wan ni ndax dañu moo lay wan ni war nañu téye làmb ji wala waruñu ko téye ndax tey am nañ suñu benn booy bu bëre muy laaj muy laay ñu ko ñaanal yàlla may ko ndam mais daal ñu ngi wax ni daal ñëw nañ daal ci làmb ji ci kàttanu yàlla nekk benn suurewu ñëw bëgg a jël li ñu moom. mais keroog dama gis Zos. ñëw si meeku. waaw bàkku bàkku lu neex ma jug dëkk ko. waaw sa diggante Zos lan nga bëgg a bëri Zos. non maanaam dama gis kenn dëkk ko. te mbëri yokkal nañ leen trois ans ma jóg tàllal koy loxo mais ba ma ko jógee tàllal loxo ñoom Bécaye mbay xam nga lam ca wax xam nga mais Zoss mbër la man war naa ko dégg li ma def ci lamb Zoss defu ko mais warul wax Khadim Ndiaye demal toog li nga def ci lamb loolu Bécaye Mbaye waru ko wax. rafetlu wuloo ko dama ko rafetlu wul quoi te lii day yàq diggante ay nit ak nit affaire yi baaxul ci ay diggante quoi day yàq xam nga. man na ku ma bëgg ma bëgg la ku ma faalewul faalewu ma la ak ku mënti doon merci. mbokk yi pare baa noonu. Ronaldo bu Sinja. ah Moussa Gueye gi. nga xam ni yaay caatu montagne. l'histoire retiendra. Habib sifflé na Moussa Gueye gi caatu montagne xale yaa ngi noonu Moussa Gueye gee ngi noonu di am lu muy kàbbar tuflit taf ko ci dënd bi caatu montagne dox na jëm ci kawam caatu montagne Moussa Gueye gi xale yaa ngi noonu huitième combat de la soirée journée Assane Ndiaye Baol production caatu montagne Moussa Gueye gi caatu montagne mbokk yi moo ñu woon ginnaaw Moussa Guy gi lañ jàkkaar lool Moussa Guy gee ngi demee wet mbokk yi mooy ndaamali caatu montagne mbokk yi booy xool moo xaw a sut caatu montagne Moussa Guy gi dóor na ko léegi droite waaye dalul Moussa Guy gee ngi dox ci kawam caatu montagne bal na ko jàpp na ngemb caxa bal na ko vite caatu montagne Moussa Guy gi daw na ñëw mu ëpp ko caxa bal Caatu Montagne Moussa Gouye Gui Caatu Montagne Caatu Montagne Montagne lañ day dëkk Montagne lañ dëkk sant yàlla rek mais combat bi dafa gaaw sant yàlla rek waaw sant yàlla rek waaw góor ñoo dina libéré man man seen affaire ma ne woon dina libéré père alxuraan sant yàlla rek. baal ñu baal ñu baal ñu baal ñu. waaw dafa la ko dafa yow liggéey rek. waaw dañoo liggéey fer barke man Seydou Fall. waaw suñu fer mayuñu dara. mais sa diggante ak. oui oui oui. bi mooy sama cinquième combat. benn defet maa ngi ñaan yàlla yem sama def yàlla yem foofu. waaw maa ngi si ginnaaw maa ngi sama ginnaaw papa rek waaw dama liggéey. dama liggéey. moo tax sama yaram daw ma xam ne am na lu mu bëgg te suñu borom yàlla dina ko defal incha allah. Ismaël du yem parce que kii ndaama la nee naa ko heure bu la tooñee soo meree bu lay jël si doo ko yëg yow yaa ko jëli soo koy daan du ko yëg. yéen a ko yor fan la jëm. moom fi mu jëm nii. non Assane Ndiaye promoteur la ñeneen ñi promoteur la la bii mooy cinquième combat fi mu ne nekk nii dama bëgg na mu joxoon ak grand combat il est booy bi. ay supporteurs mi ay t-shirt 10 000 15 000 5 000 yi jënd ay t-shirt kon kooku am na ay supporteurs. mais moo xale yi am na supporteur yëmbal am na ko fu ne maanaam boo demee tey marché HLM wala nga ñëw ah, Castor mboolem ku fay jaay moto ñëpp booy bi yar dawam dafa am yarute boo xam ne du la romb même boo nekkatul tànk du la romb te nuyu wu la ci loolu laa ko bëggee. fan la jëm. waaw fi mu jëm fi mu nekk nii moom. promoteur bu ñëw ñun duñ bañ kenn wala is na ku ñëw baax waaw léegi hors antenne la noonu ci digg géew bi ci diggante George Bush Badou Fall George Bush a ngi noonu tent bopp bi dañu xëccoo ku ci nekk fu muy taxaw George Bush demal Badou Fall gañeegum na la George Bush Badou Fall na la George Bush Badou baa ngi wax ak ñoom li làmb nangu ak li làmb bañ kële Badou Fall moo nekk nii. George Bush Badou Fall. abi na ci diggante George Bush Badou Fall. George Bush aniyeer na ba ca ginnaaw. kabar waaye pareegul. door na ñaar bëtu oom ya lan def moom George Bush. waaye Badou Fall ngay léewu. George Bush ngay aniyeer. boo xoolee mbokk yi George Bush kuk. kenn moom waaye Badou Fall ngay léemu ba léegi George Bush Badou Fall taxawaay bi soriantoo na Badou Fall ngay lewaatoo waaye George Bush daa mel ni pareegul George Bush Badou Fall George Bush Badou ñoo ngay demee wet George Bush Badou Fall saako yi fekkiwul kenn. George Bush Badou Fall George Bush a nekkee nii Badou Fall a nekk nii Badou boo génnee jëm avertissement abi bi dellu waat na leen ci digg géew bi. abit baa waxtaan ak ñoom wala boog moo ngi leen di wax saako yi fekkiwul kenn yéenay fekk saako yi. George Bush Badou Fall ñoo ngay demee wet George Bush Badou Fall bàyyi leen saako yi bëre leen ci digg géew bi bàyyi leen ñu bëre George Bush Badou Fall waaw George Bush à gauche Badou Fall à droite yaa ngi lewaatoo yéen a ngi ci digg géew bi ñëw ba ci saako yi.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 Zozo Bouss Madou Fall xaw ma xale yi la ñu bëgg a fekki saako ya waaye saako ya fañ nekkoon juguñu fa Zozo Bouss Madou Fall Zozo Bouss tibb na suuf eh Zozo Bouss la may fàttali Madou Fall moo defar saya féetee ñu à waaye ñoo ngay damantey baaraam George Bush cokaas na léegi Badou Fall reculé dellu si door na ko ñoo ngay xeex doomu daanu baa du ci am George Bush Badou Fall na ko génn saako ya dellu si waat nañu abid na door na ko eh lii la la abid na jàpp na ca saya George Bush naa soxor waaw waaw George Bush Badou Fall George Bush Badou Fall ca saya la jàpp.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 Zozu Buus door na ko léegi Badou Fall encaissé Badou Fall door na Zozu Buus Badou Fall door na Zozu Buus Badou Fall Zozu Buus garde mi dafa wàcc Zozu Buus garde mi dafa wàcc waaye Badou Fall a ngi koy natt Zozu Buus Badou Fall ci digg géew bi da koo bëgg a nax penku bi la bëgg a jël.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 tegalu tegal na ko seize da caa toog wala Badou Fall da cee tëdd George a ngay am George Bush George Bush nga affaire ah, nuyu naa la. naa la mag. waaw ah, mais ci loolu. waaye sant yàlla bu baax. fekk nga ñëw. andi waa Foraay. Uh-huh. waa jàmm gën waa Sicap Mbao. naka nga bëre làmb. waa keroog damaa juum rek dama di xala rek. balaa ñëw bëre juum. mais maa ngi jégalu samay si waree di jégalu waa jàmm gën fooraat surtout maa sama mbokk xalkulaar jégalu ñëpp parce que làmb moo demee noon maa ngi encouragé adversaire bi di ko ñaanal ndam li yàlla na ko jég eh, xëy na beaucoup de jeunesse moo ñu topp bañ def lu ñu warul def. mais da nga koy respecté wul wala parce que dañoo gis soo ko dóoree su dawee génn loxo bi si meeku nga attaqué ko dem nga ba benn moment sax xaw nga rëpp def trois appui lan la woon. waaw loxo buy simeeku bi tamit ah bëgg naa tamit lenn mooy nit buñ la jekkoo boo dawee bul aw bul sàkkatoo sa loxo. première bi daa taxaw naan day delloo loxo bi loxo bu simeeku wallaay bu simeekoo doo ko delloo noonu te deuxième bi moo ko daxee loxo bi simeekuwul daa tee loxo ba mu neex ko mu lan nga bëgg a wax foofu donc oo doo coup bi daal. non ñaar yëpp dafa jël ay coup parce que dóoral ma dóoral dañoo la ci ay kurpañ xëy na maa gën a dis loxo moo tax su ma ko dóoree moom day dem ba day perte équilibre loolu lay waral muy daw mais du ay loxo buy simeeku parce que mbër bu sa loxo simeeku automatiquement même boo ko delloowee sax boo war nañ xam ne lii dafa simeeku ñu ngi bëre maa ngi si loxo bi muy rëcci kon kooku loxo boobu mu ngi dox làmb la nag xëy na yàllaa dogal mu daan ma duma ko ci du ma ko ci xalab du ma ko ci def dara dama koy ñaanal ndam li yàlla na ko jig mais làmb yëfu jàmbaar la du affaire tapet bëre boo demee ba ci bëre affaire jigéen nga toog seen kër bañ a bëre bëre da toog ja da ngay taxaw jàmmaarloo suul say tànk rayante parce que bi ñu leen tëgalee combat ñu leen ci stade bi rayante waroon ñu indi mais du rayante du ay ñu jàpp la ngay daw affaire jigéen yooyu noonoo non dëgg la nag juum naa li ma koy dàqee waruma kaa dàq mais xam nga rek bëre mooy loo xamante ne dafa métti. parce que man li ma préparé sama làmb gisuma woon dara lu lekk ko xëy na looloo tax sax ma juum parce que bi may daanu sax man action laa def ndax damaa téye ngemb li yaa ngi doon force action bi mais yegg waaw c'est damaa damaa téye téewuma si ngemb li téere laa téye ma teq ko pour bu jégee teq ko ma mun koo fàq bi ma ko teqee mu deful je quoi ma koy fàq nag ma ko fàqee sama loxo bi dévié mu mu remplacer ma yéeg sama kaw waaw damaa juum rek daanu amul benn problème dañuy santaar yàlla bu baax parce que gis nañ keroog stade bi niñ ko def ñëpp wuy suñu di jégalu ñëpp di ñaanaat bu ñu amaatee combat yàlla ma ñu ndam parce que ñu ngi ci affaire ay xale lañ tollaguñ fi ñu amee bay ñaax xëy na juum mënul si xale juum di bi léegi moo gën dem ba yéeg o sommet di door a juum wa kontaan nañ ci waaw yàlla wóolu doomu nii ma. teel sa loxo. soo ko bëggee. Ziza. alors alors. réew mi doon na taxaw dëggal boobu rek loolu laa koy wax. ñaan da lay ñaanal jàmm. loolu laa koy ñaanal de. jàmm laa koy ñaanal a mu jël ma. ak Serigne Touba Mbacke. nee na moo la raw ci na moo la na jël lépp. lu ko neex na na wax rek. ma ko sax tontu. nga ne lan ma taxee man naan xale doole. jël ma suuf bu taxee man naa ma xale doole la. yow moo benn respect booy. bu xam taxee man naa ma xale doole la man war a def kii. kii bu taxee man war naa daaw naa xale doole. non dafa yëg boppam. daa war daa war a mag doole daa yëg boppam Ziza daa doole. nee na daa doolu ci ay mbokam. fexeel ba li ngay wax nii lu may dépassé di ma saaga nii. barki sëñ Abdou Lahad nu ma yaakaar boo taxee ci biir. boo taxee ma jaxase ak àdduna de. tab nga. laa saaga déggoo li ma la soxla ma laa saaga gis nga booy soxla ma laa saaga del simb rek tapet nga simbakat bi nga doon déggoo li ma la bari di sif rek yow del simb rek dama gis yow sa combat nga amoon beneen adversaire combat bi taxaw Ziza ñëw na ko koo jël loo koy wax dégguma dégguma dégguma li nga wax bu baax tey Ziza ñëw jël sa avance parce que avance boo xam ne ñëpp ko taxawoon di ko xaar Ziza ñëw jël ko lan ngay wax ci loolu dama koy dama koy ñaanal jàmm côté boobu moom ah, dama koy sant ndax champion loolu champion moo koy def champion mooy def loolu yaa ngi comprendre gisee lii lan la dama koy tax lii lan lii lii lan nga xam ne yàlla julli santaan ma la jàppee ma la jàppee dama ne waaw dama ne waaw respect respect naa la dama taxaw non déglu ma baram day métti xam nga dama taxaw respect naa mais war na war moom kaay ñu def na do yow kaay dinaa la rey non mais dafa ma poñe durant deux minutes ba bañ di ma poñe di ma sax. mais da ngeen ñëw pour signature ma déchiré sama yére xool sama yére ni ko def dama ko dóor naa ko te lamb ji jotagul xoolal. looloo ma jaaxal. waaw dama ko dóor moom yëfu tapata la damaa taxaw. di wax rek ndeke dañu xool sunu ma. mais nii laa ko def. Ah, dama ko duma njalabaan baa ngi nii ma yóbbu sama kër bu ma yeggee dama ko jox sama sëriñ njalabaan dama ko duma ba nangu njalabaan bi eh njalabaan ma ngi dama ko mais mais mais mais Parisien loxo bi ñaw na de. dama ko duma ba nangu njëlambaan bi. mais Parisien ngi nii xoolal. fépp bawol bawol ne ñu ngi lay woo ci suñu combat bi la 4 juillet kii arbitre soufflé tee ma jàpp ko duma ko daan ko mënoo ci dara maa la ëpp doole maa la man barke Alxuraan fi ma ko teg dama doon xale ëpp ko doole kii mag la du dara man yi ngay def di fuuf tandeku yi doo dara. barke Alxuraan bu arbitre soufflé boo taxawee ma dóor la nga daanu boo bëree ma daan la barke Alxuraan waa gannaaw bu ñu sant yàlla julli ci yonent bi ñu ngi nuyu yi fi nekk yëpp di nuyu suñu mbokk mbër yi fi nekk di nuyu promoteur bi di nuyu presse bi di nuyu waa Pikine di nuyu waa Pikine di nuyu waa Guédiawaye di nuyu sama mbokk Saloum Saloum bu baax a baax maa ngi nuyu waa Touba fa ma jàngee tamit quoi xam nga di nuyu waa Gàddaay waa Malika Kër Massar Malika Kër Massar Yëmbal benn waa Tivaouane Peulh amuñu fenn xam waa nuyu gars yi nekk si diaspora bi yi ñëpp moom loolu quoi booy bi li wax nii waxu mbër la yàgg naa moom benn instant moom laa ne mën a ñëw ba bëree fii nii wax loo xam ne amateur dañ may jëb wala xamuñ ko si man noo non parce que comme am la lamb la lamb la est la benn instant nii gëm dana ma koy daal moo tax ma lekk avance am incha allahu rabbi ci kàttanu yàlla non non loolu waxu mbër la pël man ndongo daara laa jëm suma def école ës ba pare mën a bëree moo tax mu ne ci làmb ji loolu waxu mbër la li muy wax moom poosar tapet moo tax say morom raw la fi doo dara tapet nga boo doon ki ngay bëree nee nañ la moo la man fuuf barke alxuraan waaw yow maa ngi damay gën a dugal dako la li ma bëggoon woon def yow dama koy def fii tey dee bañ ñoom ñaar fëgg waaw maa ngi dégg non bàyyi ko mu def bàyyi nan def bàyyi yow ñu ngi seetaan waxuñu dëgg nan ko wax dëgg fekk la bàyyi ko rek bàyyi ko ah, barke alxuraan fi gën fi doon sa fulaat du ko yóbbul da ngay déglu li ma la wax taxawal fii yaa ngi teg yaa man la. booy bi dafa réer dañuy saaga ndey quoi. gannaaw baax gannaaw gannaaw mais gars dafa lu ma sànni xoolal mu ngay saaga ndey. booy bi dafa sànni dafa lu ma sànni. booy bi dafa sànni. sama gars yi. mais dafa lu ma sànni. dama naan. waaw gars yi man dama leen jàngal mbër. ok dama leen jàngal jàngal. waaw kay jàng jàng. ay Sané ay Soda. non moom mooy Sané de booy dama sang suuf. fii la bokk. waaw si la. an ñi lay reetaan du la may xaalis bu dee d'accord nag comédie baax na nag mais day dul mois boo xam ne da ngay mag tuuti ba maa bay comédie mais nga wàññi tuuti demut koom loo bu sa kër. gis nga li tax li tax ngeen gëj ma gis. gëj ma dégg. xam nga. dama nekkoon ci télé yi di wax rek di comédie gars yi dem ba fàtte champion di ma doon ba ma jafe di ñoom comme ñoom yaaw jaal moo tax mara bu bëre Sa Thiès Yékini Junior Tidiane Faye Diène Kaïré jaag mooy bambara nga daan ko vraiment boo dul mbër kan mooy mbër. Lirou Diane nee na moo la mën moo la ëpp doole moo la ëpp moo la ëpp jàppale. barke Mouhamed. daañu sant yàlla bu baax bi mu nu andee suuf si. taxay booy puy booy puy moo ñëwoon ginnaaw takke la ñu jaakaar lool grand combat baa ngi noonu Zoulé Assane Ndiaye 22 4 Takay Boy Pouye Boy Pouye cokkaas na ko léegi waaye Takay ne tekk di ko déglu mbokk yi booy xool Takay moo ko xaw a ëpp tuuti Boy Pouye ku nekk ak ñu xool sama am Takay Boy Pouye Boy Pouye ngi dox ci kawam Boy Pouye sànq nee na ma Takay mënul bëree te dafa am keneen ku ma bëgg a laale Birame Sarr fecc rek la booy taxe man waaye ba dugg see moo ko daanee ba noppi dinaa la wax keneen ki ma bëgg a waaye est-ce loolu dina sotti mbokk yi ñoom ñaara ngi ci diggi géew bi taxe booy puy jaw na jàppante taxa door na ko taxa door na ko ba kaaw kaaw yegagul taxa booy puy eh, taxa daan na ko da door booy puy daa jël ku booy puy daa jël ku Boy Pouye daa jël coup dafa daw jël ko mu pompé ko pompé waat ko mu kaawoo mu yeggali ko taxee ngi noonu taxee ngi noonu. Boy bi signature bi ah. Eh, daf ma wax lu ma métti. lu mu la wax. mais ma. tey nee na lu mu métti métti. ah amal yar. ah ba ku la ah! la xel. mais combat bi combat bi noo nga xam naa ne xam nga. da ne woon nga. lamb yee xam nga dama ko doon wax. Ah. am na benn énergie boo xamante ne yaa dama ne Lamine ba ne ma naam Lamine ba ne ma naam ma ne ko Lamine gis nga lamb doo ah. su nekkee am si ay tolof tolof yaa da ngay gën a entraîné yaa pour ba nga may lu ñu wax lu ñu wax Lamine ba yow kii man dama gëm entraînement dama ko bëgg sama biir xol barke ma Samba yàllaay dogal jàmm mooy nangu. cër bi nga jox booy. waaw ñëwut cër bi cër bi. non cër bi mooy yoon ndax booy puy jël na ma mais daf ma desee xam ndax guur yàlla yee day am liggéey métier bi ma yor nag maa ngi siy sant sama bu baax yee man sama papa day de mu jëlee loxoom te ko sama kaw bopp yee dama jooy ndax loolu yombul si sama papa yee fi ma jëm. foo jëm sama moroom yi nañ jël sama avance. waaye ku ñëw ma jëloo ko waaw mbay guy gi mii waaw moom lamb di sant na ñëpp ñëw. fëgg la. barke maam Serap Fall. fëgg la aw ma fayam. xoolal kooku. su ma nee daanaka génne na million. def ko si lamb ji. mu ne ma yow sama doom nga da gore. ñu gis ne li nga def ci lamb ji ci xaalis mosoo ko see def. ndax nga déglu bu gis nga caabaay. caabaay la sama oto paanee. ma taal sama teemas. billaahi wallaahi dama kaa teg tànk ba jëm ñaajo. sama teemas laa taal. teg tànk oto bi ba jëm ñaajo. billaahi wallaahi ndax man dama nekk bañkat. man du ma topp si ginnaaw kenn. nga lamb ji man sama gars yi. ñii ñoo si jàpp. parce que man seera na dem na bàyyi sax yëngu di sant lawbe yi nag jibi ji lawbe non booy boo aw ma fayam billahi fay nag maara trois cent mille sama kanam am ndam kese soxla ñooñu mënu ma leen fay surtout waa Seras waa booy yoole yoole yi di sant ñëpp di nga xam ne maa ngi waa dérangé ak di nga xam ne maa ngi pour lamb waa bi ñëpp yee man doomu tandem si laa te du ma jugee xoolal tandem si ñëpp dañuy jug Lamine li ñu def c'est après dañ ko yeggee fan nga jëm fi ma jëm sama morom bi nañ ma jël ñëpp su ma su ma laajee yee dañu naan i dafa pare mais maa ngi fi pour làmb mbokk yi gis ngeen lii moo fi amoon Assane Ndiaye woo ñu fi ak ba njiital Bawol Production gis geen lii moo fi amoon ki nga xamante ni mooy taxe daan na booy puy jël boo xamante ni ne amul benn werante daan na ko jël boo xamante amul benn werante gis nga maa ngi fee ci làmb ji waaye nag li ma ko waxee woon wasaare lamb lépp loo xamante ni làmb la wasaare làmb da leen koy andil dégtal leen ko bu baax a baax kontaan nañ kontaan naa si yow cameraman bi kàggu liggéey nga liggéey bu am solo jaajëf doo jox di daje ba beneen yoon wasaare làmb maa ngi nuyu Baye Djily te nag daa am waaye invité wul kenn yéen ñi nga xamante yéen ñu siiw Baye Djily tey day ngénte